gis nga señ kooku nee na am na bis bo xamne ne damaa ci tek bi magazine bi di jël ci standard ma jek resin ji di soti ci biir tubéy ji manam jël ci lu bare bare soti ci biir neena na bi rek dajeeg bi ci ci ci ëtt bi té neena na wax suuf ci suuf su njaarim ci nonu mel rek ba nopp tang jër neena na bi nak taxaw di wax ak man rek ku safon señ bi la señ bi da ko da da ko da ko nee muy wax ak man may nee na mu mujj boole sama ñaar tànk yi di ko kepparti far ñoor yi dañ nee na tàndarma jeeg resin ji tàmbalee wat nee na sëñ bi ne lii lii lu doon nee ma ne ko bokk ci say may de sa taalibe yi moom saabu naaju tàngee rek tàndarma ak resin day génn seen tuba <laughs> nee na waaye li ci li ci yéeme li ci yéeme nee sëñ bi da cee bëgg di sant yàlla moom ci may gi nee na ci saa sëñ bi daa tàmbalee sant yàlla ci may gi moom melokaan yooyu moo nekkoon ci sëñ bi moo gaa taxoon gaañ mënuñu ko woon a muñ maanaam dalay dalay dalay boole ci boppam noo xam ne say waajur defuñu la ko boole ci boppam noo xam ne say defuñu la ko muy moo tax mu neexoon a bëgg moom sëñ bi fii ne ñi nekkoon ak moom dawuñ ko mën a muñ sëñ boobu may wax am na ci gaañi koo xam ne sëñ bi mas na ko yebal ndar te booba ñu ngi gànnaar te booba gànnaar ñaxnaat lañ doon jëfandikoo ñaxnaat te ñaxnaat gi kudd gi juróom-ñetti góor ñoo koy bokk genn kudd juróom-ñetti góor ñoo koy bokk buñ noppee kenn ku ne genn kubéeru sotalam ndox lañ lay jox soo ko amaatee ëllëg lay doon nga xam ne la gën a yomb ci li ñuy liggéey nga xam ne buñ la ko waxee ñëpp dañ lay ñee mooy demal bindal ma kaamil bu la demal ma bindal ma kaamil ñëpp dañ lay ñee xam ne yaa ngi noppalu ci jamono yooyu la ko sëñ bi yabal ndar ci mbokkam mu sàkk woon sëñ